bi ma ñëwee gis naa kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ñaanale Macky Sall ndax wax dëgg ci yàlla le président Macky Sall ilaatuwaa ji mu def ak assainissement bi mu nekk di ko réglé ak ni mu dimbalee baykat ak ni mu dimbalee étudiants yi ak ni mu nekkee ci l'emploi des jeunes et la formation des jeunes wax dëgg ci yàlla ku jëla jàppale la moo taxoon ñu profité aussi pour santaat sëñ bi bu baax a baax santaat aussi wa arrondissement bi tey di len wax nuyo excellence aruna Dia excellence aruna Dia di nit ku baax Arouna Dia di nit ku yiiw Arouna Dia di nit ka nga xam ku bëgg le président de la république Macky Sall Arouna Dia mi ngi dimbalé les étudiants ci tout le président Macky Sall Arouna Dia mi ngi dimbale baykat yi ci tout le président Macky Sall. Arouna Dia mi ngi dimbale néew du doole yi ci turu président Macky Sall na Dia mi ngi def des actions sociales ci turu Macky Sall kon nit bu mel noonu guddi ak bëccëg di def ay effort ci département bi ci Sénégal ci diaspora ci turu Macky Sall loolu dafa am solo ñun waa Bambey aussi ñu sant bu baax na Dia di ko xamal ni wax dëgg ci yàlla bëgg gi mu bëgg Macky neex nañu téye gi mu téye Macky Sall neex nañu fonk gi fonk Macky Sall neex nañu dëgg ci yàlla loolu moo taxoon ñu ñëw euh, di santaat ñëpp yéen journal di sant bu baax a baax a baax a baax. salaam wax nga ko lambaay mais bi ñu ñëw ñàkkul lambaay am na jafe que tey ci démarche yooyu rek boo leen xoolee bërëteel bi jugé ci APH bi ñeu Bambey dafa nañ ko tali bi jugé nangal ma di euh, di ñëw euh, Lambaye euh, projet bi ñi ngi si finaliser nañ ko ba paré loolu dañ si sant président bu baax a baax Bambey Baba garage euh bu fekkee dañ ko jëlé touba tubaatul tàmbale nañ ko loolu aussi wa Ecotra ñi ngi si liggéey bu rafet liggéey bu rafet rafet loolu ñi ngi si sant bu baax a baax Abdoulaye Sylla tey wax dëgg ci yalla président mi ngi gol góorgóorlu bu baax a baax ba gis nga certification rurale bi ci président def gis ngeen aussi l'addition de de d'eau li si président def gis ngeen aussi aussi semence li si président def baykat yi meruñu wax dëgg ci yàlla bi ma ñëwee Lambaye waa Lambaye nee nañ ma dañoo contact waa Lambaye nee nañ ma seen xol dafa sedd ndax président taxaw na leen tali bi nekk incha allah président mi ngi si finaliser nañ lépp euh, lancé nañ marché bi nga xam naa fan ñu néew diir bu néew euh, bu soobee yàlla ak yoon bi boo fi jaar sa xol dina sedd waaye boo leen gisee délégation bi ma àndal ngeen xam ne des identités remarquables ndax boo xoolee Emine Ndiaye xool Ndiaw kan

nekk naa daal nekkuma candidat du waxu tey ndax li ci ëllëg mënu ma koo xam yàllaa ko xam waaye li si ëpp solo daal mooy kontaan nañ bu baax a baax a baax ci Arouna Dia ci action yi muy def wasalaam merci. la population de Lambaye pour leur engagement, pour leur loyauté envers le président Macky Mais aussi en profiter pour rendre un vibrant hommage à un homme digne, un homme loyal au président de la République Macky un homme très engagé au président, du président Macky Je vous nomme Excellence Audega. Excellence Audega fait du social sans but. Excellence Arnadia aide les villageois sans but. Excellence Arnadia aide les agriculteurs sans, but. Excellence Arnadia aide la population sénégalaise dans le social, dans le développement, au nom du président de la République, Macky Sall, sans Inch'Allah, la route euh, de l'engagement venant à l'ambassade sera bitumée dans un délai très imminent, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut s'attendre à la Là, je ne peux pas présager l'avenir. Je laisse ça entre les mains de Sintouba Khadim Une autre question, aujourd'hui au ministère il y a une question qui est sur le projet, c'est le projet d'extension de la commune. Là, je ne maîtrise pas cette situation. Ce que je maîtrise, c'est que nous, la population de Bambé, encore une fois, nous félicitons et encourageons l'excellence Arnadia pour son engagement sans faille aux côtés du président de la République, Macky Sall, notre leader. Merci.